darajaa fariqin ah, comme ni ñu xamee rek maqaama xaafira fukaahiya lay doon maqaama bi noonu la demee abu zeydin dafa yelwan càngaaya néew ci lim wax ndax xam naa jombul lum tuba yoo daal lay wut waaye ci lim wax nag dafa dafa yelwan càngaaya néew mooy maqaama bi dégg mu ne hakka nettali na alxaaris u xaaris ibnu hammaam xaal mu ne yammamtu jublu woon naa may yaa faarixiina dëkk buy naan may yaa faarixiin maaruf katin ànd ak setti muwaafiqiin ñu daway dëppoo dama mos a dem may faarixiin ànd ak nit ñu xam ne ñu déggoo lañ layu maaroona du ñu weerante fil munaajaati ci déyaale buñ dajee de waxtaanee mbirit muy seq ñomu neen seen déggoo ga dana ca feeñ waxtaanoo day sotti wala yu duroone te duñu xam maa ana taamal mu daajaati mooy caskal mu daajaa mu daajaa mooy hiidu hante ci biir noonu hante nit ki ko reexal comme sa xarit waaye ne xéene woo ko dara lu baax bëggoo mu xam ci yow dara moom it noonu lay defal andi boobu moo tudd mu daajaa mu ne ñoom xamuñ loolu kenn ku nekk rek la ca moom rek ndax nañ seetla lay ci xaritoo wala yu duroo te duñu xam maa lan taamul mu daja mooy cafkaal mu daja lu ci tegu ko kuntu nekkoon naa bihim ci seen biir kaman di mel ni koo xam ne lam yërim dañul an wajaarihi walis ndaareem wajaar mooy dëkkuwaay bukki waaye da ci jub dëkkuwaayu nit wala daana te laxasut an alifi walis xaritam wajaar yi ak dëkkandoon bi may ànd ak ñoom dama mel ni ku nekk mel ni ku nekk ki dëkkandooram rek ah fala fa kuntu nekkoon naa bihim ci seen biir kamante mel ni koo xam ne lam yërim dañul han wajaarihi walis ndaareem wala daana te laxasu an alifi walis xaritam wajaarihi ak dëkkandooram falamma anax naa ba ñu yësalee nag bihaa ci ma ya fariqiin mataya tasiyaar waruwaayi dox yi bañ demee nag ba nga xam ne àgg nañ fa ba dal wantaqal naa te ñu toxaloo xaneen ak waari walis tegi ci la awkaari jëm ci tàgg yi bañ ba àgg ba kenn ku nekk dal fa mooy dal xam ne dëkk bi mu ne nebi daal toppatoo li ñuy dox moo ñu tax a jox ci lañ war a nekk bi loolu amee tawaa say naa dénkante woon nañ bii taskaari suubati ci fàttale fàttale fàttale ko xàndoo watanaa ay naa te ñu tere ante ani taqaatumaay walis dogoo fil xurbati ci tumaranke dañoo waxoon ne comme hande woon nañ fañ hande bokk ci yoon wi e di dimbalante ba ci dëkk bi mënuñoo bokk benn dal kenn ku nekk ci këram lay dal waaye bu mu tax ñi baxante déedéet nañ wéyale ngëbante e gi subaa ñun ñëpp kenn ku nekk morom ma dem mbokkam de xaritam dana mujj am doole watanaa xëy naa ñu tere hante ani taqaatoon e walis dogoo fil xurbati ci tumaranke wattaxas naa ñu jàpp naa di yéen penc moo xam ne naa tamiruhoo danañu ko dundal mooy dañ ci jublu tarafa yi nahaar ci ñaari feti ba cëg bi wana tahaada te ñuy joxante fii ci penc moomu turafal axbaar way rafete way rafete xibaar ñu seet benn barab boo xam ne espèce grand place la ñu ne ñun ñëpp buñ xëyee nañ bokk dajee si file su ko defee lu ci waaye fanaanoo ñu xam ku ci xëyee loo jar seeti ñu seeti la ku ci xëyee lu ñu war a def soxla ñu ko soxla ku ci xam loo xam ne baax nañu yëg ko ndax xewal gu ñuy séenu la wala ndax yàq bu ñuy ragal la nga yëgal ñu su ngoon jotee bu ñu wàccee ñi dellu fi dajee kenn ku nekk la meendoo ñi xam lu ku ne dellu këram noonu lañ daan def <coughs> wa taxam naa ñu jàpp naa di yéen penc moo xam ne naa pëndiroo danañu ko dundal tarafa yi naa ci ñaari kati bëccëg bi wana taadaata danañu joxante fii ci penc moomu turafal axbaar wa fa bay na maa nax nu diggante waa ñun fii ñu fi benn moomu fii ba'd al ayyam ci lenn fan yi waqadin taban naa tëbiroon nattu nañu fii sirki ittaam ci bu mu dajee bu mu dëppoo benn bis ñu ne fa te xam naa ba waxtaan wi neex na torop waqafa taxaw na alay naa ci ñun soo miqwalin borom lammiñ jëri yin bu daa ji jàmbaar wa jarsin ak baat jëwëri yin bu daa ji xiir xam benn waay bu xam ne xam naa ku ñi ni kàddu la lu mu bëgg waxoon ne ko mën a wax waaye itam ku wér la baat la ku yanj baat la ku mu waxee danga ko dégg mu am fa hayya mu daal di nuyoo tahiyatan nag fasin na yëpp taf laa koon bi loo xam ne ci pas-pas yi mu nuyoo comme comme kalam bu waxaaw moomu nga xam ne mooy fas ba pare def dal di tëf li ñoo di mu teg comme noonu la mel fa hayya mu nuyoo tahiyatan nag fasin euh, nuyoo taf laa koon bi loo xam ne ci pas-pas yi xam naa fi kuy reba koon dina as di gayle wala naqari ak mbote mu dem ak yow rek su ma qaala toog mu wax ne indiya yaa qawmi xadisun ajib fi itibarun lillabibin arib raaytu fi rayani omri aha basin lahu haddul husami alqadib yuqdimu fi lmaarifi iqdama man yuqinu bilfatki wala yastarib fa yufriju diqa bi karratihi hatta yura makan dankan rahib ma barasa alaqrana illa sana an mawqifi saani birumhin xadif wala sama yaftahu mustazaban mutaaliq albaabi mani an mahi illa wa nooti hina yasmu lahu nasrun min allahi wa fadlun qarib hada wa kam min laylatin baataha lu ci tegu yamiitu fi buddi sababi alqasir yartasifu alxiida wa yarsufnahu wa huwa lada alkulli almufaddal mufaddal habib falam yazal yaktasuhu dahruhu ma fihi min oodin wa battin salih hatta asaarat layaali laqan yaafuhu man kaana min qarib mi jàng lool mu ne hen ndiye nekk na fi man yaa qawmi ayéen samay bokk hadisun waxtaan ajibun wuraaji héemi fiihi nekk na ci intibaarun qalam lilla bi mi ñaar aji xelu xaari mi ku daaji xelu dama yor benn waxtaan bu ma leen bëgg a àggee xam na ku am xel man caa liggéeyloo xel raytu gis naa fii rayaani omri yi ci njëlbéen sama dund bi maa la guddi xam ne doo bu ma mag dama gisoon axaaba sin borom ak ñeme nit ku am kàttan ku xam ne lowoo ñaan na ko xaddu xusaami ñëw kaak jaasi alqadi bu daa ji ku xam daal lu mu dafa mel ni jaasi jo jaasi laa bu koy càtt rek mu dagg <coughs> raytu gisoon naa fii rek aani am ri ci na sama dund hmm. aha ba sin borom ak ñemeñ hmm. koo xam la woo ñaal na ko xaddul hmm. hudaa bi ñëw kaag jaasi alqadi bu daa ji dagg mu doon ku xam ne yuqdimu dana mu songu fil maaraki ci xare iqdaama man songa koo xam ne yoo xëy dana mu wóolu di fakki ci rey wala yasri bu dana ci sikk dara mu doon ku xam ne buy engagé ci xare du jàpp ne li muy engagé ne dee am am ca dafay jàpp ne day def rey man bi rek te ndax moom jàmbaare fa yóbbu ñu mu yëral adiqa xar adiqa xat-xat bi karrati yi ci àggam xata yora ba gisee maa li nga xam kaana nekkoon na mu daan kan daay di rek yéban mu daay di moo tax bu mu ci xar rek bunt fee ndax leen jàmbaare yuqadimu dana mu song mooy dana engagé fil maaraki ci xare iqdaama man song koo xam ne yoo xam ne mu wóolu bi farki ci rey wala ay këri te duñu dikk dara fa yubriju mu yëral adiqa xat-xat bi karrati yi ci àkkam xata yura ba gisee maa li nga ne kaana na mu dan kan daaji xat réyiban mu daaji yaa dafa ñëw ci loxo ab rabia mu sukkoone moom wax ba sukkoon maa baala sama su lewtoon alaxaraana maa bi illan sanaa dara ba wëññeekoo na mu biru min ci gunto xadii bin ba defuñu réex dara am mawqifi taxani wali taxawukaay jam bi mu tuut taxaw lu mooy moom mooy pare gànnaay lu sëq deret la jëm koo fa mu dee rek maa baara sama du lewtoo alaxraana maa fi illan sanaa dara boog moom wàññeeku na mu am mawqifi taali wala taxawukaayu jam bi biro min ci gonto xadijën bare bu ñu rox deret wala sama mosul yëkkateeku moom jàmbaar jooju yaftahu mbirom mbirom dana mu hubbi mustanaaban tata jiñ defeñ lu hubbeem mustaxlaqal baawe bare bu ñu tëj mani an bu daaji terewu mahiban bare bu ñu illa wa nudiya lare boo xootees na xëy na yan waxtu waa dana mu yëkkate ko loo jëm ci bi tata jooju ne nasrun min allahi wa fathun qarib fu ñu naan ay noona fa làqu ñu ne ñoom lañ soxla mu engagé leen léegi buntu am mosul songa te amul victoire benn yoon wala sama mosul yëkkateku mooy mosul jóg yaf saxu mbiroom dana mu hubbi mustasaban luñ jëfiñ lu hubbi mooy tata joo naqadee hubbi mustaxlaqal baabi la lu ñu tëj buntam ma nii an la ma hiiban la da lu illa wa nudiya ndare boobu waateem na xëy na yat ma la woo jëm ci ubbi li nag ah noonu la bi toll waxte <coughs> mu ne xaaral mbir maa ngi loolu wa kam min laylatin bëri na guddi e, baataha góob fanaan na mu ko yemmi su de daagu haale fii buddi ci gom daw alxasim mu daaji xeer e, te bëri na guddi goo xam ne e guddi gu kéemaane la ci moom nday doxal yëfi ndaw rek yartasifu dana mu foon dana ñeeri alxiida jongama yi waaye suuf na woo ñoom itam ñi ko ñeeri wawate moom almufaddaa mooy ku ñuy jot la dal kulli fa ñëpp alhabib mooy soppe dalal kulli fa ñëpp mu nekk ku xew ñëpp daal su suwel ku rek ne moom moom dana waawa yartasibu dana mu ñeeri mooy dana koon alxiida jongama yi mooy way gu way gudu dox na woo ñoom itam ñi ñeeri ko wa wate moom almuqaddam mooy ku ñu def alhabib mooy soppe dalal kulli fa képp ci nit ñi falam yasal dañul yartasibu woo de ko réegi dawru woo jamonoom maa li nga xam ne fii nekkoon na ci moom min battin ci jàpp mooy kattan li mu amoon waxoo din ak bant salib ba de aji dëgër loola nag ñu dem dem ba fa mu war mu mat mu di wàññeeku nag jamono bi nga xam ne moo ko di ko gannaaw ida tamma amrun bada naqsuhu tawaqaa tawalan ida qila tam mbir gannaaw ne nañ mat na ne commencé na ba falam yazal dañul dawru woo jamono yabtasu woo décoré ki dawru woo jamono tanafamal amal la maa li nga xam ne bii nekk na ci moom min battin ci jàpp waxamaadin ak bant salimin bu daa ji dëgër xataa saarat ba mu jël ko alayaal yi guddi yi la xam muy kam lu ñu sànni ba mujj ñëpp bari ñëpp ber ko min bandi maa xat kaana ci gannaaw bu mu nekkee almujaaba di kuñ daan xëy ci dagg almujiba di ki daan xëy ñu daan invité ci baax na ko beneen yoon incha allah waajal waxtu qad ajasa raqiya tahlilu ma bihi min addaa'i wa ayat tabib mu ne feebar dikkal na ko wasaara malbida wasaara nahu min baadi ma kaana almujaaba almuji wa aada kal mankuusi fi laxdihi wa man yalqa dawaahi lmasir wa haa huwa alyawma musajjan faman yarghabu fi takfini mayitin gharib mu ne xadaa jasa lottuloona arraaqiya aji mocci tahlila maa wàcce tahlilu maa wàcce li nga xam ne fecc li nga xam ne bii nekk na ci moom mena daa yi ci jàngoro jàngoroom ji sëriñ si def nañ ci ne waaye mënuñ ci dara yaa lottu loona atta bii ba aji garbal docteur yi mënuñ ci dara ma dogu na albiida jongama yi jongama yi mu jaxasoo do ñëpp bana leen ndax wasaaral na woo ñoom it doogu nañ ko ndax bëggaduñ mais bari naa kaana ci gannaaw bu mu nekkee almujaaba de kuñ daan ngay ji laaj de waaw soxlaa dina ko fa de almujiba de ki daan ji rek ñaan ko defal ay invitation ci ràng rek kelu waaw wa aada dellu kalman koosi de mel ni ku ñuy jatt fi xalq yi ci bindam moom daal mbir mi daal da wëlbati ko wëlbati ko moom daal ay neex neex ak i taar ak i kàttan bayre la xos waaye daal dafa wëlbati ko di ay métti métti ñàkk bayre rappate son rek nu mu daal la xadina da mujj na kal man koo di ni ku ñu jàkk fi xalq yi ci bind moom daal dafa mel daal mbir mi day wëlbati rek e eh, oma yeneen ku dund na ah yow xam nga nu mu dajeel dawaa yéen mos yi wéy jom mu nekk fii jaww mu ne ah dina ko fi yàgg da ko gis dara da ko gis dara da ko yàgg da ko gis dara waaw ba yàgg ku dund mu yàlla xam dana mu dajeel dawaa yéen mos yi wéy jaww mu nekk fii jaww inna samaniina wa bullixtaha qad ahwajat sama ila tarjuma ne ko naqari na fa gi tax su nit waxee ma xaaju xam ku xelleeku ci suma peg hmm. ah juróom-ñett juróom-ñett fukki at a ko waral yàlla nañ ko am dara ñaan inna samanina wa bullex saha xada wajat same ila tarjuman teloolu baax waxaa yëg leen ne alyawma woo moom na alyawma tey musa jan ku ñu sàng la ah mel na kay ne mbir mi àgg na ko ko yàlla jëmee woon na àddina mu nga tëdd ko sàkk waaw mel na kay ne mbir mi àgg na ko ko yàlla jëmee woon waaye na huwa moom alyawma tey mutajan kuñ sàng la man ana kan nag moo xamee fii takk fii ne mayitin ci sàng néew mooy tiyaaboy sàng néew xari bin bu da ko daaji génn na àddina fàgg mm. ko fardu kifaaya la jamaa muslimin la war mm. waaye ana kan mu bëgg tiyaabu ko def ko defee ni tiyaabu la war ni dag suma inna ko suma inna ko topp moom aalana wóoral na binna hii bi ci de jëntu mm. wéyee mu bii dafa daal di fokkat bu baax mu jooy ba kaamu jooy bu ka al muhibbi jooy aji sopp xalal habibi ci soppeem mel ni ku ñàkk waaye lool wala maa raqaat ba dalee dama tuuroo rongañam wan fasaat feddal la waatuwoo lakkatu xolam ba mu noppee ca jooy ya ba dënn ba doon yëngatu yëpp dal ba mu mën a wax xaala dafa wax ne hmm. yaa ngi naa ta ruwaati yan nu ñaatar nu waadi yan forluwaay wuy gubi ah yéen ñi nga xam ku am soxla jubluwaay ngeen wo yan forluwaay wuy gubi wa qudwatal ajwaadi tey roy téefi ñi tabe yi yéen ñi nga xam ku tab yéen lay roy wallahi giñ naa ci yàlla may leen giñal ne maanaa tax tu tudduma bi wutaali ci ne man ganu ma wutaali wala axbartukum xamaluma leen illa an yaa leen dara ci jàkkaarloo de waxuma leen déggee naa la wax de te waaw walaw kaana te nekkoon fiança yi ci sama xet séerun wali xëy mi nekk ñaar sama mu teyrun astaw la tasartu kon ma bi ma li nga xam ne dama ko ko boonaa leen ci lay jëm wala wala maa ma taxaw moo ko fa daal di taxawee di tegtale mm. alayhi ci moom te doo fekk ku mënul dara bu mm. def dara waaye tiyaa bu ji ma leen xool di mm. ngeen ko soxla noonu la koy soxla su fekkoon sax man dara kon soo koy def wala kaana bu nekkoon fi en ci sama sayrum dox. wala xëy mi nekk ñaana sama ne mutal ak taw wala may wax dara mm. dafa sartu kon ma jaboot ma ji li nga xam ne daanatu ko wanaa li léegi de ñoom kon jàngale bi ma ko ma waxab mm. ne kon du ma taxaw mm. moo ko fa daal di taxawaay ni tëgg daa ni taw dafa war ni da ma def dana ko baax a baax walakin li fi nekk nag kay fa na naka naaw bila jënaaxin ci lu mbokk waaye def dara moom dara mooy am juddoo ko ma def kenn du noonu lu mbokk waxal ala man te warul koo xam ne lay ji lu du am min junay mbakka xëy nag borom sëriñ ak buy laaj ñi xam lay def dëkk amul laaj moom waaye ala man ndax war na koo xam lay ji du am min junay mbakka qaala wax na arraawi aji solo ji te mooy xaari wala bi xadal de xaram alqawmu nit ñi yettamiloo ne di diisoo di digu muy di diisoo bi maa ci li nga xam ne yaamuloon nañ ko digle wee taxaabotoo na ñuy werlante fi maa ci li nga xam ne yaatoona nañ ko dikkal ah bi mu waxee nag li mu wax bëgg nañ cee def dara waaye waxtaanee ko ba ne ko am te du ko ñuy ñuy ndéyante ba xam ne ñuy génne ñuy ndéyante ba xam ne ñuy génne parce que dafa xarabal xaw ma nit ñi yastamiruuna ne de di ko mooy de diisoo ma ci li nga xam ne yaamuruuna danañu ko digle wa yataxaafatuuna te ñu yotlante ma ci li nga xam ne yaamuruuna danañu ko digal fatawaxamu mu def le wu ne annahum ñoom yatamaalaoona danañu dëppoo mooy danañ comp dëppoo ala sarfihi ci soppatee am bi hirmaanin ci xaj aw mutalabatihi wala sakku bi burhaanin ci lay moom nag mu yaakaar ne gars yi seen ji yëpp li wax muy bu kenn jox dara ba lañ ko jox dara nañ ko topp ba xam li muy wax mu di wan lay doon fafara dal di raw mu ne ci li na ba mu ko foogee lu mu gàtt gàttam jot naa wax kàddu yu diis yi de fafarata dal di raw minu li man xaala mu waxaat ne yaa mi alxaa yéen njuunu xii pàkk yi yéen ñi nga xam ne sax la di leen gis rek waaye jarulee dara yéen ngi mel ni njuunu wa yara mi albi xaa tey doji pàkk ne seen bàyyi lu mën a naxee la ku leen gis foo ne ay gars yi ndeke du leen dara maa alladi jër gi nga xam ne baaxu danaa ko bañ alxayaawul kersa jër gi mooy lan li xanaa ku am jom kuñ laaj war na ko rusa def wala ku am jom ku laaj buñ ko ko defee mu far de hatta ka ànd ku melal na ni yéen ku lib suñ toggeen na leen ma soqatan coono la suqatan waaye du benn morceau bu rek benn morceau mu rek lii melal mel ni kuñ teg loo diis mbooloo ten na ko bon lu nga dina ataka an na ko mela mel yéen ku liw tun toggeel mata xatan coono la su xatan waaye du benn coupon am rek loolu war na yam awustu hiptum wala mayof na leen bal da tan dëkk labour da tan waaye du li mel ni kuñ ñaan dëkk xaaru mel ni mbubu rek aw tuhibtum wala mayof na leen baldatan dëkk mooy dañ leen ñaan dëkk laa burdatan waaye du mbubu aw husistum wala gësamees na leen likkis watil bayti ngir xodd kaaba gi laali takbinil mayti waaye du ngir sànni néew xanaa kuñ waxoon dogalal kaaba gi càngaay yi war naa bi sàngal néew jar na lii kuffin cam cam li man ñaar koo xam ne laa tanda du so du lay sabaatoo lay sabaatoo dojam la tanda du lay mooy du tëq lay sabaatoo dojam waa tasawu du seet xasaatoo jéem bare man ko amul njëriñ dara sama mu ne fala ma fasur basurat ba gisee aljamaatu mbooloo mi bi dalaqati yi ci fasaa ak lambiñam wa mararati masaqati yi ak wexu waay ak wex ak mosu waayam rafaahu daax na ko kullun képp minhum ci mbooloo mi benay lii ci mayam waxtama la mu xenu tallahu taw bi misalam xaw fa tey lii ngir ragal waa mu ne bi jot a wax nii nag mbooloo nga xam ne kii daal bu ñaaw ku ko mën a mën man la kenn koy def gaaw génne dara jox ko li woon ñu muñaale ko li woon ñu far ko muñ rek waaw <laughs> waaye maalil karimi alal ma ne la jëmale ko rek arafa awa daax la ko ku doon képp minum ci mbooloo bi benay lii ci mayam kenn ku ne dafa diñ dara am am rek waxtamala mu henu tallawoo taw bi sala mooy kaddu yi mu jota wax ñun ñëpp ñu jëlale ko muñ ko rek xaw fa say lii ngir ragal waa même yol ndeer ndax lu ko gën a diis gën koo gudd mën na jee topp léegi nag waa ji daal bi gaa yi commencé jot la ne la dara kàddu yu diis a diis ñu toppee gën a diis lay doon ñu seet daal duñ ko jox te buñ li mu wax na alxaaris ibnu hammaa xaaris nee na wa kaana te nekkoon na hada sail ji daa ji laaj waaqifan daa ji taxaw xal bi ci gannaaw wa muxtajiban te daa ji hiidoo bi zahri ci sama gannaaw an safi wali sama ji mu ne yàlla dogal na li muy wax yëpp nag man ci sama gannaaw la taxaw te gëstoowuma tax na gisuma wa kaana nekkoon na hada sail ji daa ji laaj waaqifan daa taxaw xalfi ci sama gannaaw wa muxtajiban te daa ji hiidoo bi zahri ci sama gannaaw an safi wali sama ji falamma asdaahu ba mu gërëm looyee al qawmu nit ñi bi say lihim ci seen may boo ko ñëpp joxee nag waxaqatee ci man ataasiroy bihim ci ñoom ma ji ne li nit ñi def war naa koo def ndax loo xam ne joma ko laaj xalajtu summina kaatani sama jaar min ximtari tukkee ci suma baram sànqale wala suma baram bi de jaaroom ci xoot dama dindi jaaroom wala mattu mag geesam ilaye jëm ci moom ilaye jëm ci moom basari sama gis ma daal di ko gis fay saa ci mbetteel woo moom say xoonaa suñu góor gi la asaro ji léegi abu saydi ni soro ji la bila priété dulu pen wala priété du jàggin leer léegi nu ma sumee sama jaar sama jaar bi di ko dox geesoo ne gaabu saydi waaye xamtu ma wóolu ne annaha naka lii uksoobatun fen la te kaddabaha yooyu fen na ko bu uxboolatun te dég fiir nasabaha gu sampala booba laa xam ne lii ay tappalay boppam ay pexey boppam la waaw waaye ma wóolu ne annaha naka yi mu def yi mu wax yëpp uksoobatun fen la te kaddabaha yooyu fen na ko bu uxboolatun te dég na sabaa du takkona illaa andi ndare man tawaytuhu leem naa ko ala xarrihi ca leem leemam bu ñàkk bu ñàkk xam nga malaan bu ñu ko leemee nga leeme soo ko leemaatee leem leem bu jaar leem leem yëpp jaaraat fa leem leem bu ñàkk ba jaaroon na meloon rek lay melal su ko defee mbir mi xam nga ko waaye xam nga ci dalal mel ni ba nga ca xamagul dara li ñuy wax tawaytuhu ala xarrihi xam nga ko waaye xam nga ci dara mel ni ba nga ci xamagu dara wasuntu ma ñoŋeel saxaawu jàngaram saxaar saxaar mooy bu benn bañ dëkk ñaari bañ sax fa mooy saxaar fërri yi walit nattum xam naa mbir mi rëdd nañ ci lu ci bokk topp ma ko daal illaa ni dara man tawaytuhoo leem naa ko ala xarri yi ca lem lemam bu njëkk wasuntu ma ñoŋeel saxaawu jàngaram an përli yi walis na tun kon demul bi kaan bi door a demal demul nga lu jiitu ah. benn la ah yéen fayoon ngeen man dama ci yóbbu doon dara facture bi dafa yéex a ñëw moo tax dégg nga ma sànni ko bil xaatami ci jaaru booba laa fa daal di jaarul wa qultu ma ne ko asidu fuuglu ko li nafaqatil maadami ngir matami ngir dund léegi bi mooy ki ñàkk jëkkër ma ne ko yóbbu ko naa aju ca pere ya aju ca boobale mën na ja bokk Jaafar ibn Abi Talibin bañ ko ca xare Muuta yonent bi dafa santaane woon ne na nit ñi defar ay ñam yóbbu ko ndax ci kër ga mm-hmm. loolu moo tax dëj yi yiñ cee def mm-hmm. mën ko delloo ci sunna is na wa taama mm-hmm. li ali jaafar delloo bu baax a baax asidu fugluloo ko li nafaqatil maatam bi ngir dunduleeg maatam bi mooy njaboot gim ba ki ñaa kim ñàkk jëkkër jabaram fa qaala mu ne waahan dana ma héemu la kañaal ah dëgg-dëgg waaye fama lëf lu màgg adrama taxal na suma la takka sa takka takka yow daal yu yenje rek yu am maana rek ngay def daal waa adrama te mu teral fan la takka sa jëf lu baax daal ngay def su man talaqa topp mu bayu yasan di dox xuduman ci njël wuyu har wilu muy ñàkk har wala sawoo ñàkkam xin man ca njàkk bam ko defee nam doon ñukku ñukki di dikk hmm. mu dëppaat di ñukku ñukki di dem mel ni ku yàkkal fa nazartu ma sopp ilaa irfaani mayiti jëm ci xam ne woon bi wamtihaan daawa xamiyati yi ak nattu xoote jom ma bëgg a xam su fekkee li mu wax dëgg la néew bi kan la ak itam ndax moom ni mu waxee nii mbir yi demee na ko fa nazartu ma sopp ilaa irfaani mayiti jëm ci xam ne woon bi wamtihaan daawa xabiyati ak nattu wate jomam ba xaraatu ma dal di fëgg sumboo bi sama yax ak xeer mooy ma dal di buur topp ja waal habtu ma labbali xulhoo bi sama ak labbali daw xël xataa adraktuhoo ma jot ko ala xalwatin ci kem saanu fett bi mu ñu sóoree kem saanu fett daw yi ma daw foofu laa ko jotee wajtalaytuhoo ma feeñu ko fi xalwatin ci fiix mu ne ko dama amoon yow waxtaan ñu dem bu foogaa ne maamu rek ñoo ko ne xataa adraktuhoo ma jot ala xalwatin ci kem saanu fet wajtalaytuhoo ma feeñu ko fi xalwatin ci fiix faa xastu ma jàpp bi jumee ardaani yi ndax loolu la ci mbooleem loxoy mbubam waxtu ma gàllankoor ko hmm. an sanani may daani yi hmm. wala yoonu lefam hmm. mu poñe ko téye loxo yi taxaw ci kanam ma ne dama la soxla ba ñu génn ba fi dama ko poñe téye loxo yi ubbi yi ba du mën a fi tërne ma taxaw ci kanam waxtu ma jàpp bu jëmee ardaani yi ci mboole loxo yi mbubam waxtu ma gàllankoor ko an sanani may daani wala yoonu lefam wa qultu wax la ma ne ko a ñaalu la min ni ci man malja un wéedu waay mm. wala man jan du caageen mucc waay mm. aw turiya nii ndare nga wan ma mm. ma yitaka sa néew almusa ja bari buñ sàng bari bi nga yelwaana càngaay soo bëggee sa jàmm wan ma maalaka ñaalu la min ci man malja un wéedu waay wala man jan du caageen mucc waay aw turiya nii ndare nga wan ma ma yitaka sa néew al musa jaabari mu ñu mm. sànq al waawa mm. mu ne fa kasa fa mu huññi hansara wiilihi ci tubaya mu tekki tubaya mm. wa asaara mu junji ila xol wóolu yi def ci sàkkaraam daal di junji sàkkaraam ne ma kii la <laughs> mu ne fa qultu ma wax la woo ma ne ko xaatalaka la xaatalak yal na xalak la allahu yàlla yow yal na nga dee fama lam lu màgg alhabaka foxeeloo na la binnuhaa ci xel yow daal ku nekk mën nga ko caaxaane rek ba nax ko rek wax yàlla ka tem fexe loola xalal luhaa ci may yow daal fexe mu ne daal mën nga cee jële yëfi jàmbur laa ko fama lam lu màgg alhabaka foxeeloo na la binnuhaa ci xel yi xol mu ne xel mu ne mën nga ko foxee caaxaane wax yàlla ka tem fexe loola xalal luhaa ci may su ma wattu topp ma dellu ilaa saabi jëm ci sama yàlla nag ma def aw dara yi di dellu aji fukk aji gub mooy kuy gëstu alladi koo xam ne la yëkk si bu du mu fenal alahoo ñoñam wala yu barqisu te du naxaat xaw la hoo waxam waaw ma def ko delluwaat ci samay gaay delluwaat boo xam ne wax li ma gis rek amul amul leen amul ñambas amul wàññi amul dara waaw axbartu ma xamal leen bi la si li nga xam ne raay ci gis naa ko ma war raytu te làquma ci dara wala raaytu gistaluma ci dara dama wax ni mu demee rek mu ne fa xaqoo ñoom ñoom ñu ree ñu xaqatay min kayta wa kayta ñu ree ñu wax nangam nangam ba wala néew mu ne ñoom ñoom ñu ree wax wax ba waqara xawa ñëwee bil kayta wa kayta mooy ci nangam nangam ñu wax wax wala anu ñu rëbb dalikal mayta boobu de